Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa eh, sama mbokk yi lay nuyu di len ziar di wacce ku nek wacce wayam di contane si wat ak yeen tay di seddo comme ni nga ko faral di defé rek xam-xam eh, tay nak ñu euh indil len ben secret bo xamné pour suñu mbokk goor ñi ak suñu mbokk jigéen ñi. ñi nga xam ne ñu ngi si néegu sëy yi yàgg si lool te mënuñoo am taqandeer mënuñoo am doom te ñëpp xam ne ne si dund buñ nekk nii gàtt na gàtt boo xam ne euh, ku sañoon tey di nga bàyyi fi taqandeer boo xam ne ëllëg euh, dina la dina la dina nekk meññeent meññeenteel boo xam ne di nga si mën am ay sët am si ay sëtaati sët ba sa tur bañ a fay euh, mu am ay góor ñoo xam ne tey ji ñu ngi koy jooy am ay jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi koy jooy surtout jigéen ñi sax lay gën a métti waaw métti na si ñaari côté yëpp nag ndax doom moom dafa sax si xool dafa neex ku sañoon di nga ko am kon yal na ko yàlla may képp koo xam ne yaa ngi koy sàkku ut yal ko yàlla may si yoon bu baax euh, yal na ko yàlla euh, maanaam yombalal ñëpp incha allah yàlla mun na loo te yal na ñu ko yàlla defal di muñ loo ñi nga xam ne itam maanaam amaguñ ko te lépp loo gis rek si àddina tant que deewoo rek amul dara loo xam ne euh, mu mën a koo am. nit ki tànk mu ngi dund rek war naa am yaakaar kon yàlla moo koy maye yàlla nañu ko may yàlla nañu ko yombalal ñun ñëpp ak ñi xam ne tey ñu ngi koy sàkku di ut te nekk si buumu sëy yàlla leen ko yàlla may si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam métti na lool nag waaye incha allah ñun fas yéene neen ñëw séddoo ak yéen liñ si xam am na nag ñu ngi si jëflanteel nag alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin am na ñu si jëflanteel ñoo xam ne macha allah toog nañ mbir mi eh, sotti. te lepp nak si loxo yalla suñu borom la waaw yalla mom lepp lo xamne ne rek jàpp leen si moom la jógee lepp lu am rek si mom la jógee bu len nit ñaanale sax mu soti santal yalla ba pare mun nga sant nit ki ndax te man la askuru nas la askuru allah way santal euh kon ma nga ñew euh wax len secret bi te yu bari la waye ma commencé si ay bi ngeen gis muy rabbi la tazarni fardan wa anta ghayrun warisin ay bi si premièrement bi bu la neexee mën nga ko bind mën nga ko bind si diru juróom-ñaar fukk yoon ñi wax 70 dix soo ko bindee soixante-dix benn garab bi ñuy wax sota ajjana xas bi ngay ut nga boole xas bi boo ko dëbbee ba mokk mu nekk sunguf nga lay ko fekk bind nga lii soixante fois da ngay bind soixante tek teg bindaa beneen soixante-dix teg benn soixante bi nga xam ne boole nga ko sota ajjana bi xas bi nga jox ko góor gi mu koy naan chaque jour beneen bi jigéen bi di ko naan chaque jour incha rabbi day ah bokk na si xam-xam yi xam ne dafay maye njaboot tey maye doom incha allah bu la itam bët bu set boo xëyee muy góor gi muy jigéen bi mun ngeen jël seen kurus ngeen wirda rabbi laa tazirni fardan wa anta xayrun waarisina rabbi laa tazirni fardan wa anta xayrun waarisina moom yomb na su ko defee yow boo munee yow góor gi nga koy zikkar bokkut ak nag li ma wax bind bi ñuy bind pour boole koog la lee di naan mais ginnaw lolou itam war nga di téye sa kurus bët bu set di li yagut bari wut matu sax ay ki minute su ko nga def rabbi la tazani fardan wa antu warisina warisina dégg su ko defee inshallah euh nga koy def soxna ci du ko def euh amna tam benen bo xamné tam mu ngi ci top waaw su ko defee nak inshallah euh lolou mom moy li nga xamanteni ni euh moy lu njëkk li muy rabbi la tazani faydan wa anta xeyrun waarisiina mooy secret bu ñëk bi nga xamne euh mom leen leen jiitalal pour mu ñëw euh inshallah seen écran si kanam tuuti di ngeen gis euh, benen secret bi nga xamne mom tam dina ñëw inshallah bu ko defé ñukoy def par par par benn benn ngeen bañ ko jaawlé ndax taxte bu ci nek rek dafa am ñu lañ koy expliquer ak ñu ko wara defé waaw euh, su ko defé ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ndax adduñu am nañ si ñoo xam ne yenn saa yi dañuy jaxase mbir mi waaye rabbi laa tazarni fardan bi wa anta xayrun waarisiina comme ni mu leen ko waxee noonu ngeen koy defee te bu leen ko jaawalee tam bi ma leen bi ma leen waxaat la waxalaat bi nga xam ne mi ngi ñëw seen écran fi incha allah waaw bu ko defee incha allah mu nekk Kahya Ayn Sat mi ngi ñëw nii moom muy ñëw dinaa leen ko leeralal ba mu gën a leer bu ko defee ngeen bañ koo jaawale ak bee ndaxte bu si nekk mbiru boppam la waaw bu ko defee bii nii itam da ngeen koy bind comme ni ngeen ko gisee euh, muy da ngeen bind allahu kun bisimilah rahmaani rahim ngeen ubbi ba pare su ko defee ngeen bind kax yaa ayn saat kax yaa ayn saat bi mu ngi nekk suratul Maryam si bopp saar bi bu ko defee lii da ngeen koy bind 33 euh, fois da ngeen koy bind 33 fois muy kax yaa ayn su paree nga def ko saafara. denga nga euh, gi di nan ak jigen gi safara bo xamne da ngay bind ben 70 bo xamne comme nima waxone be nga jeglel ko góor gi mu koy nan beneen 70 bo xamne jigen bi mo koy nan ñom ñaar ñi nga xamne ño sekk te bëgg am doom su ko defé inshallah da ngay def kah ya ayn saat 33 fois mo nga koy bind soo ko 33 fois ba pare après nga jël ko nak def ko safara euh, bo mëne am zam-zam di ko boole ak moom di ko jox mu koy naan itam baax na muy zam-zam dégg nga incha allah euh, bu ko defee loolu da ci am solo ndax ndaxte mbir mi ñaari nit ñoo ko seq waaw su ko defee nga jël bee jox ko kële beneen bi nga jël jox bu ko defee ñoom ñaar ñëpp ñu koy naan incha allah kon nag yaa ngi saa 33 fois saafara ngeen koy naan góor gi ak jigéen gi boobu jàll na mu des bii nii bii mooy tam aaya bi mu ngi nekk suratu Maryam itam muy li habba lakki xulaaman zakkiyan li habba lakki xulaaman zakkiyan kon nag incha allah bii na euh, dañ koy jël bii nag dañ koy jël boole ko ak euh, lu ñuy wax euh, reenu papaya dégg nga reenu papaya yaakaar naa ne war ngeen koo xam mooy papaay yi ñuy lekk nii garab bi laa wax na reenam su ko defee moom ngay ut ut nag ginaar ginaar bu weex ngay ut fekk bind nga aaya bi mooy li habba lakki xulaaman zakkiyan soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon ngay bind lii soo ko bindee juróom-ñaar fukki yoon ngay ut reenu papaaya ba pare ut ginaar fekk nag saafara si ngay jëlee si li habba lakki xulaaman zakkiyan ut tam reenu papaaya bi moom ngay boolee tam ak euh, ginaar googu toggee ko ko waaw moom nga koy boole togg te ngeen moytu laaj bu bu si laaj am nga togg ko ba mu ñor bu la neex mën nga see def ñaar mais nag nekku ne da ngay defar lii ba pare jigéen bi ak góor bi ñëw bokk ko lekk ko déedéet soit jigéen bi jël ko lekk ko moom kese beneen yoon tam nga bindaat comme ni ma ko waxee nga jox góor gi moom te mu lekk moom kese en tout cas si nekk benn yoon la koy lekk dégg ngeen waaw incha allah léegi nag yaakaar naa ne di ngeen li ngeen gis no seen écran bi mooy euh, reenu papaye moo nekk nii garab bi reen bi so ko defee da nga ut fekk bind nga lee soixante dix fois nga boole ko ak moom maanaam saafara si su ko defee nga jol toggee ko ak ginaar gi soo ko toggee ginaar gi ba pare nag Euh, jigéen bi jël lu lekk moom kese xam bu nekkee ku bugg lekk moom dana ko jeexal waaye am na ñoo xam ne seen lekk rëyut waaye mu fexe daal ba lekkee bu suuree mu bàyyi bu ñëwaat kaat en tout cas daal moom moo ko war a lekk moom kese moom jigéen bi beneen yoon bi itam góor gi mun na ko def mais bu ko defee itam moom tam moom kese kese kese moo koy lekk dégg nga incha allah ndaxte mbir mi yaakaar naa ne euh, méttiwut dégg nga te yàlla moo ñu moo ñu moo ñu digal ak yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyan. ñuy saxo ñaan te ñaan mom yaakar naa ne képp julli war nako war nako war nako saxo ak ak jafe-jafe mu te nekk ñaanal rek yalla mom mëna lu ne te lepp lu ñaan gi mu nango itam sante ko yalla mom rek moy moy jara sante sant waaw man la askuru naas la askuru laa tam euh, bi muy baatu euh, muy turu yalla bu wax euh, al musawir bi da ngeen koy wirda bu dee wirde. la gor bi da koy wirda Euh, si euh, six cent cinq muy góor bi da koy wér de six cent cinq su fekkee ne góor bi moo nekk ak soxnaam soxnaam soxnaam di ko wér de cinquante trois fois maanaam boo xëyee téye sa kurus nga def yaa mu sawiru yaa mu sawiru yaa mu sawiru euh, six cent cinq fois bu fekkee ne yow muy góor bi nga def ko yaa mu sawiru six cent cinq fois ñaan si njaboot ñaan si li nga xam ne moo nga bëgg su ko defee bu fekkee ne jigéen bi la moom itam muy def yaa mu sawiru yaa mu sawiru trois fois Deng, nga mu nekk loo xamante ni jafewul euh, yomb na kon nag ngeen fas yéene koo def incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla faj aajo yëpp si zaar ak si batin. ñun nag lii leen mën ñu ngi koy def yàlla nag mooy mottali yàlla mooy matal kon nag yal na yàlla mottali yal na yàlla matal képp koo xam ne am nga soxla rek euh, bu bu bu bu yemut ak euh, mooy yàlla yal na yàlla faj soxla boobu si zaar ak si batin. kon nag ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal ngeen ñaanal ñu ngeen nekk si jàmm ñu ñëpp ñu nekk si jàmm yàlla dafa ñu wërsëg dafa ñu kaaraange dafa ñu euh, mucc ak muccale dafa ñu itam euh, xol yi sell def ñu ay dëgg-dëgg ay jullit ay dëgg-dëgg ay jaamu yàlla yàlla itam xëy ñu si baax rey ñu tam si lu baax te ñu gudd fan wér ay cër incha allah kon ñu ngi yem fii di leen jox dig daje bu suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.